bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilaalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi al anbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaatil wahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax alayna bi maxrifatil ilmi wa xassin axlaaqana bil xilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur alayna qazaa'ina raxmatika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 di nuyu soxna yi di nuyu professeur yi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun jotaay bi ñoom professeur Lamine Ndiaye euh, sociologue defe naa noonu la <laughs> ñoom professeur Ngouda mbubb ñoom professeur galo Diop suñu papa neurologie fële ca Fann ñu ngi koy nuyu di nuyu professeur Souleymane Touré cardiologue di nuyu docteur Ane ja ak mboolem ñooñu nga xamante ne ñëpp ñoo ngi ñuy déglu doon ñu jàmbaari ñu bëgg xam-xam ñoo xamante ne ñii ma tudd dañu bàyyi xel jotaay bi saa su nekk di ci ànd ak ñun di ci joxe seenum njàngat ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen bàyyiwaale xel ci yëf yi ndax waxtaan ñaar a koy déglu ba ñett daa am koo xam ne boo ko sóoraalewut ci saw doxalin rek jóom ndax lenn ci li ngay wax lu mu dund la ba noppi moom yow nag ci wax ko nga toll waaye am na koo xam ne moom da koo dund ba noppi am na koo xam ne da caa boole dund ko ak di ko wax ak koo xam ne da koo dund te du ko mas a wax waaye am koo xamante ne loo tàmbali mën na koo àggale waaye mën naa am làkk yi ngeen ko jànge bokkut ndax mbir yi ay jumtukaay la waaye li am solo rek mooy li jumtukaay bi di jur li am solo mooy li jumtukaay bi di jur maanaam arab aw làkk la français aw làkk la anglais aw làkk la arab nag dafa am genn jagle gum am te làkk yooyu amuñ ko mooy borom bi subhaanahu wa taala mi bëggee sotti alxuraan ci ñetti ndab yooyu ma jota lim ak yeneen ndab yi di làkk yépp ay ndab la rek ay bagaan yoo xam ne dafa tegu alxuraan war a doon dugub ju ñu war a sotti borom bi subhaanahu wa ci ndab li tudd arab la ko sotti quraanan arabiyan gayra si iwaj léegi nag wóor woowu ca nekk nag buñ ko xasee ba rukk ndab lu ne mën na caa tibb yóbbu jëfandikoo ko ci na mu ko war a jëfandikoo la ca topp yëpp ay xam-xam la mënees na koo jële ci eh, xeetu déggin wu ne ak ya nga xamante ne moo ci am moo tax eh, mbir mi yaatu na lool te lu na ku ko mbir mi daa yaatu lool te lu xas ba yaatu ku ko xatal nag lu ci yàqu yaa ko yàq borom bi subhaanahu wa taala dafa yaatu lool yaatoom gi nag moo tax lépp ca xaj lépp ca xaj ndax moom ku yaatu la jalla jalaaluhu wa azza kamaalu waaye ñi yàlla gën a fonk ci kaw suuf mooy boroom xam-xam yi boroom xam-xam yooyu nag bunt bi daa yaatu moo tax boo jàppee ne boroom xam-xam yi mooy ki jàng téere bi alxuraanul karim dafa am ay jagle ak ay ngëneel yu ci nekk yoo xam ne benn téere amu ko waaye alxuraanul karim nag day ubbil nit ki xam-xam ba noppi nit ki di ko nal ngir génnee ci xam-xam yépp moo tax innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama borom bi nee na ñu ko ragal te koo ragal dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi mooy ñooñu kon bu ko yàlla waxee mooy ñi ko xam mooy ñi ko xam yàlla moom kenn du ko xam di ko yab ku ko ku ko xam ku ne da nga ko daal di ragal ca saasa ku ko xam da ko daal di e, bàyyee nam bàyyi boppam subhaanahu wa taala ca saasa kon ñooñu ci kaw suuf di borom xam-xam yi borom bi nee na màggal leen mooy màggal ma màggal leen mooy màggal ma koo xam ne yëkkati na boroom xam-xam buy jëfe xam-xamam ma ngay màggal boroomam subhaanahu wa taala ma ngay màggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yonent yi boroom xam-xam yi ñoo leen donn yonent yi boroom xam-xam ñoo leen donn ndax ab yonent kenn du donn ci moom ay kër wala oto waaye boroom xam-xam wala ab yonent la ñuy donn ca moom mooy xam-xam yal nañu ko yàlla defal wa maa utiitum illaa xalila borom bi subhaanahu wa taala bi muy waxtaan ak ñun ci yërmande ji ma doon waxtaane ba agsi ci li nga xamante ne mooy ruu mu wax yonent bi ne ko danañ la laaj ruu mooy lan ruu ruu mooy li nga xam ne moom la tax di yëg moo la tax di yëg bu dañee ci nit ki yëg-yëgam day dañ ak nekkam day dañ ak nekkam day dañ ak dundam day dañ nga xam ne ruux mooy alimenter li nga xam ne mooy alxayaat muy dund gi dund googu nag mooy ànd ak yow ngay mën a am yëg-yëg yëg-yëg yooyu nag ci la ñuy rawantee gannaaw bi fi ruu nekkee nag luy xew rek ci gannaaw ba la mën a xew waaye bu ruu xasee génn ci nit amatul lenn lenn lenn loo xam ne moom mënati na koo yëg moom nag lañ doon laaj yonent bi lan mooy ruu maanaam boo ñu ko doon jàngal mooy lan ndax dañ ko daan laaj borom bi ne ko danañ la laaj nangam tontul nangam wa yasalunaka ani nangam wa yasalunaka ani nangam waaye tey bi mu ko nee wayes alunaka ane ruux da leen wax leen wax leen ne ruu moom mbirum yàlla la mbirum yàlla la li muy tegtale mooy eh, xam-xam bu ko nit mën a peege dafa daf da koo ëmut ndax li yàlla joxe ci xam-xam daa tuuti xam-xam yi wàcc ci àdduna lu ndaw la te lu ndaw loolu kenn mënu koo peeg moo tax waxul rabbi zidni ilma muy wax naan ko waxal sa borom mu dolli la xam-xam te moo ne xam-xam a ngi fi ba ñu wooyee nit ki borom xam-xam waaye wa fawqa kulli di ilmin alim borom bi nee na lu waay bari xam-xam bari xam-xam am na ku ko raw waaw lu bari xam-xam bari xam-xam yam am na ko fa tàmbulee am na ku ko raw fuuf ndax xam-xam yi noonu la noonu la bindoo loolu mooy bu ma koy wax ci kàddu bu dee dund ko nag moom la yonent yàlla Moussa doon dund ak ki nga xam ne mooy xabir waxoon naa la ko Moussa toog di jàngale njàngale ma am solo lool xam-xam ba bari lool xëy na suba ba ngoon jot laaj buñ ko laaj tontu na Moussa xëy na suba ba ngoon jot di wax ak mbooloo ma mosu leen a wax luñ mas a dégg lu mu leen wax rek bésub keroog lañ ko mas a dégg Moussa di leen firi la ko faram-fàcceel nit ña yéemu lool nit ña yéemu lool ndax doomu aadama daa bëgg ku koy jommal ñu baree bari li tax ñi leen di nax mooy bëgg lu jafe doo nga ko waral bëgg lu jafe fi ne li nga soxla ngir jaamu yàlla lépp lu yomb la lu jafe liñ lay dikk te xamagoo ko maanaam bu waa ji doon làkk rek làkk woo xamut xame euh, noonu rek bu ko defee nga daan ne waaj ji mooy ngand waaw daal di commencé yéemu waaw mu lay wax yoo xamante nii ay miracle la yu garaaw la mu yéem la doomu aadama moo bëgg loolu waaye jullil suba nag nga julli ñaari rakkaa tisbaar ñeent takkusaan ñeent timis ñett gee ñeent booy julli jàngal faatiha tekkiw saar wala aaye joo man jàppal ci say woom ab diir siggil taxaw tegal sa jëbi ci suufu ak sa bëti woom yi sa cati tànk yi ak sa loxo yi toogal defaat ko boo ko defee ñeenti yoon bu dee tisbaar la sëlmalal julli nga jeex na waaye léegi doomu aadama nag day bëgg a yoxamtiku ci lu mu xamut la ca gannaaw loola lépp lépp lépp lépp ci yuñ koy e, dig yoo xamante ne nii leerut moom lañ koy dig ba paret naan ko du leer waaw du leere fii yëf yi mënoo koo xam bu ko defee nit ki mën na ciy daw ba dundam gi jeex ndax bëgg lu jafe Moussa nag yéen doo jàngal nit ñi ñu ne ko yaa fi raw borom bi ne ko Moussa bari nga xam-xam waaye am na ku la raw ci wet waaw da ngaa mën a ci wet am ku mën a ci am am ku mën a ci wet mbir yi noonu la bindee da ngay mën ci bii boor am ku mën ci beneen boor moo tax bi borom bi waxee ne ruu mbiram la wa maa utitum min al ilmi illa xalila ba muy jeexal aaya ja ca topp dafa wax ne illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kaana alayka kabira borom bi subhaanahu wa taala day moo yor moo yor nañu ko defal am na jeneen aaya alquranul karim ju ne ca suratul ahzab borom baa ngi wax naan xul man dha alladi yaxdimukum min allahi in araada bikum suu'an aw araada bikum rahma foofu xéewali yàlla bind kaaraange gi yàlla bind li lay fegal lépp borom bi yërmande la ko wooyee mu ne kan moo leen di fegal kan moo leen di fegal ndox seen digganteeg borom subhaanahu wa taala bu fekkee dafa namm ci yéen lor wala mu namm ci yéen yërmande kenn mëntatee yërmande ja ñëw wala yajiduuna lahum min dunillahi waliyan wala nadira ku fi bàyyi yàlla dootoo amati koy wéeru dootoo amati kenn ku lay dimbali kon yërmande yàlla lu yaatu la maa ngi aaya yi nga xam ne ñooy waxtaane yërmande ba tey ci alquranul karim ci saar woowu ma dugg laay des di suratul azab borom bi subhaanahu wa taala ma ngay wax naan huwa alladi yusalli aleykum wa malaikatahu wa malaikatahu li yuxrijakum min azulumati ila nuur wa kaana bil muminina rahima borom bi subhaanahu wa mooy ki nga xam ne moo leen di jàmmal mooy ki nga xam ne mooy génnee ci lëndëm yóbboo ci leer waaye yàlla nee na ku yërëm lañu ko gëm waaw al borom bi subhaanahu wa taala nee ëmbal na leen yërmande ju rëy yàlla nañ ca bokk walaw shaa allahu la jaalahum ummatan waaxida walakin yudxilu man yashaau fi rahmatihi wazaalimuuna maa lahum min waliyin wala nazir moo yor ndimbal waaye nee na bu ma neexoon ma def leen wenn xeet ma def leen yéen ñëpp ngeen bokk ci benn daayira waaw yàlla nee na bu ñu neexoon ñun ñëpp mu boole ñu ñu doon ñenn waaye tàqalikoo gi lu naturel la te doomu aadama bindoo noonu nañ fexe ba tàqalikoo gi ñu tàqalikoo ci biir lislaam te bañ a te bañ ne ci biti te kenn bañ a ne ci biti moom daal effort yee yitte yi yëpp rek na doon effort yi nekk ci biir waaye bu ñu xasee ba nekk ci biir biir leneen la ca des yëpp sensé position rek la waaw dañoo bokk ne ci biir saal bi daal am ku toog ci fauteuil bi am ku toog ci moquette bi am ku toog ci tablier am ku feronku am ku taxaw waaye li ci am solo mooy ñoo ngi ci biir te loolu mooy lislaam loolu mooy lislaam Oustaz Alioune Sall mi mën a misaal bu la koy misaalal ci benn jullit ñi danaan la day mel ni lislaam ab tool la fleur yi sax ci tool bi yépp nag ay fleur lañ rek couleur yi nag mën naa wuute bii day xonq bii day verte bii zone bii nàngam bii nàngam waaye yépp ay couleur lañ yërmandee borom bi subhaanahu wa taala moom lay boole ñëpp ëllëg yow mal xiyaam ca bisu regle ba xul maa fi samaawaati wal ardi xulillah buñ la laajee kan moo moom li ci asamaan ak suuf yépp benn boroom la am kenn ko moom kenn moo li ci asamaan moomoom li ci suuf lépp lépp lépp lépp kenn képp ko moom kooku mooy kan allah mooy yàlla boroom bi nag kataba ala nafsihi arrahma dafa farataal ci boppam yërmande maanaam borom bi mooy gàlloo mbir waaye kenn du ko gàll dara ñun nag li ñu nekkee yàllaa ñu ko gàll far force fara force dañ koo war a def ku ko def mu xéewal la ku ko deful mu duma la bu la jéggalut ci coobareem waaye nee na moom moo warlu maa warlu nangam xam nga léeg-léeg nit ne maa la warlul nangam di la ko defal saa su nekk maa la warlul weer wu dee ma fayal la sa luyaas bi waaw ndax nangam ak nangam moo ne yow xëyaloo ko bokku ci ñi ngay liggéeyal bokku ci ñi ngay xëyal waaye da koo def ngir jaamoo ko yàlla wala da koo def ndax nangam borom bi nee na moo warlu ci boppam yërmande waaw moo yërëm ñëpp yàlla nee na yërmande maa ko yor maa ko maa ko maa ko def mu nekk sama devise nga xamante ne sama mbir la la yajmaannakum ila yawmi alqiyaamati laa rayba fiihi alladina xasiru anfusahum fa hum laa yuminuun yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nee na danañu dajale danañu dajale ñun ñëpp yowmal xiyaam sikki sàkk amut ci loolu danañu dajale ñun ñëpp waaw ku faatu rek yaa ngi ci yoon wa ñun tam ñoo ngi ñëw ñoo ngi ñëw wiiri wiiri jaari ndaar yi te ndaar yi mooy dem rek gas ba mu xóot ñu suul ruuya dem daje di ñu xaar borom bi dajale ñu nag yowmal xiyaam yowmal xiyaam yàlla nee na ña fa perte dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne dañoo perte seen bopp moo tax ma waxoon la démb ne la rikk waaye na nga fexe ba jubóog sa bopp na nga fexe ba jubook sa bopp lu ko waay jënde jar na ko boo ciy xalaat ba mu yàgg nga war a xool ba xam ndax yow juboo nga ak sa bopp wala déet te nit ku nekk nag war naa def yitte ngir jubóog boppam waaw ngir jubóog boppam jubóog sa bopp mooy nga bañ a nax sa bopp rek nga bañ a nax sa bopp xam nga léeg-léeg naan la da baax te yow ci sa bopp euh, ci sa wàllu bopp ci sa xelum bopp ci sa xalaati bopp xam nga ne lii nit ñi dañ la koy wax waaye du dëgg ndax yow meloo noonu da ngay sàq mi te sixoo dara juboowoo ak sa bopp léeg-léeg sax seytaane mi ngay sikkal yaa ko gën a bon te yëgoo ko baaboog yéen a yam ndax seytaane eh, muy benn sikk la def sikk saa ko yóbbee la ko dal lépp mooy la aadama am da koo yéenewut waaw la aadama am seytaane da koo yéenewut seytaane daal nee na aadama lu tax mu fi amee lii yàlla ne ko boo defee loolu attaqué woo aadama man nga attaqué waaw bu dee bu su fekkee yow li aadama am da ko koo yéene wut amoo problème ak aadama waaye man mi ko may man nga amal problème <laughs> moo tax ku iñaan ku ne yàlla nga amal affaire waaw ku iñaan yàlla nga amal affaire parce que li nga ne waa lu tax mu di ko am yàllaa ko ko jox kon yàlla dinaan la man nga amal affaire moo tax yow it waa ji lu tax muy am nangam lu tax muy admis examen bi te man ak admis wu ma lu tax bi mu fi tàmbalee liggéey léegi mu am fi nangam lu tax mu am succès lu tax mu am nangam ba nga noonoo ko yàlla ne la man nga noonu man mii nga amal affaire moo tax ku iñaan yàlla nga amal affaire ku soxor yàlla nga amal affaire waaw kooku nag mooy ki juboowut ak boppam waaye borom bi nee na moom daa farataal ci boppam li nga xamante ne mooy yërmande yàlla ñu ko defal yërmande borom bi subhaanahu wa taala nattu la nattu la nattu lay doon boo xamante ne nii da koy nattu ñi nga xamante ne ñooy yéefar yi ndax ñu dellu si waat ndax ñu dellu si waat tooñkat tooñkat bi nga xam ne day tooñ ba noppi borom bi di ko defal yërmande léeg-léeg xéewal lay doon ngir mu dellu siwaat ngir mu dellu siwaat moo tax léeg-léeg feebar nekk yërmande ndax bu fekkee feebar bi moo la mën a fàttali yàlla ba nga tuub sa caaxaan yi nga nekke woon boo feebaree santal yàlla ndax yow feebar mën na laa tax a doonaat as gor waaw feebar mën na laa tax a doonaat as gor mën naa tax nga xam ne àdduna du kër léeg-léeg nit baaxee ci feebar jaare fa wér xàmmee fa ba faw kon feebar ba xéewal la ci moom wa ida atharna annaasa rahmatan min baadi dara massathum ida hum wala ida lahum makrun fi ayatina qul illaahu asrahu makra inna rusulana yaktubuuna ma tamkuruun borom bi subhaanahu wa taala na buñ mosalee nit ñi yërmande ginnaaw ba ñekkee ci ay lor gannaaw ba ñekkee ci ay ay ay caaxaan waaye gis nga foofu yërmande la tudd am na feneen ci alquran wala in asaxna al insana minna rahmatan thumma nasaxnaaha minhu innahu la yaawuthun kafuur yàlla nee na yéefar yi tooñkat yi nit ñu sàggan ñi buñ leen mosalee yërmande ginnaaw ba nekkee ci ay jafe-jafe yàlla nee na ñu naaguwaat ñu naaguwaat delluwaat ci lañ nekkoon delluwaat ci lañ nekkoon gën a sàggan gën a sàggan moo tax yërmande borom bi subhaanahu wa taala moo yaatoo noonu yërmandey borom bi subhaanahu wa taala day wane ne moom moom lépp la xulaw antum tamlikuuna qadaa'ina rahmata rabbi waaw yàllaa ngi wax ak ñi nga xam ne dañoo nay ci jaam ñi naan leen bu fekkoonte ne yéen a moom magasin yërmandey borom bi subhaanahu wa taala idan la am saktum xasiyatal infaaq kon day ngeen téye ko kopp koppal ko ndax ragal koo dépassé wa kaana al insaanu xatuura waaw yàlla nee na doomu aadama ku nay la ku ngott la waaw nit daa ngott day yaakaar ne bu joxee jeexal waaw day yaakaar ne bu joxee jeexal la borom bi subxanahu wa taala am nag yërmande la ko tuddee waaye nee na bu nekkoon ci loxol ku nay mu kopp koppal ko waaw xasiyatal infaq ndax yaakaar ne bu ko joxee day ñàkk a unzila alayhi zikru min baynina bal hum fi shakki min zikri bal lama yasuuqu al azab waaye am indahum xadainu rahmati rabbika al aziz al waaw yàlla nee na euh, magasin yooye nga xamante ne ca la yërmaaneem nekk ndax yéen a ko yor moom borom bi subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne mooy aji tedd ji mooy ki nga xam ne mooy aji maye ji mbokk yi aaya ak yi ko jiitu dama jaaroon ci jaar bu yàgg yépp day dellu ci yërmandey borom bi subhaanahu wa taala yaatu gi nga xam ne moom la yaatu ginnaaw bi aaya yi wéyee daan naa def bu ma ci noppee indil la lenn ci ay ahadis te mooy wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam yi nga xam ne dafa ñëw ci yërmande alwaarida fi rahma tomb bi nga xam ne moom lañ doon waxtaane lenn ci joxoñ yi nga xam ne moom la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxoñ xadis bi ma ciy njëkk a indi imam Buxaari indi na ko ca Fatxul Baari yi ma nga ca Usaamata ibnu Zayd moo ko nettali waaw radiyallahu anhuma moom mi saxaaba la baayam saxaaba la nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa yuqiduni ala faqdihi wa yuqidu alxasana bnu ali ala faqdi al bi alayhi salaatu wasalaam euh, na ma teg ma ci ab luppam jël asan seydina asan ibnu ali teg ko ci beneen luppam mooy pooj bu doon ci waxinu olof danga naan ma uuf ma uuf asan waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam uuf na ma uuf asan waaw kenn ku nekk ñun ñaar mu teg la ci benn tànk mooy mu uuf la boole ñaari xale oof maam daan na ko def maam yi xale yi ñeme waxuma nag maam yu mel ne gaynde wala jamono tëgguñu tëggin woo xamante ne amuñu contact ak suñu maam ndax ni àdduna bi bindoo wa yuqidul xasan wal xuseyn wala boog xasan ibnu ali ala faqsil axar teg ko ci beneen pooj bi bi ci des teg ko ci beneen pooj bi nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax naan allahumma irhamhuma fa inni waaw yàlla maa ngi lay ñaan nga yërëm leen ñoom ñaar man de yërëm naa leen allahu akbar allahuma irhamhuma fa inni arhamhuma yàlla yàlla na nga leen yërëm ñoom ñaar ñii man de yërëm naa leen waaw wala yàlla na nga leen yërëm ni ma leen yërëme ni ma leen yërëmee nga tegtal ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon yërmande ku ko fonkoon la ba gis nga ñaari xale yi mu óof lim nekkee ak ñoom moo tax maam boo uufee ay xale bul nekk di saaga di saagaak ñoom uufub xale naan ko fóon ma fóon ma maay sa séeri nga xam ne ñun xale yépp ci aas boobu lañ leen di jàngal séeréeg fóon ak yooyu rek lañ leen di jàngal ndax kaf gi yépp yooyu la waaw ñëw ci xale bi yaay maamam waaye làmb sa poos génne téeméer daal di koy may am ma may la maay sa séeri nopp nga ma yow maam loolu rek nga mën a wax xale bi nopp nga ma maay sa séeri nga xam ne moom léegi séeri nopp fóon rek séeri nopp fóon ci loolu rek lañ ko bëgg a yar waaw ëpp naa def ngeen baal ma maam maami jullit day jàngalee ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxoñe woon ne nañ jàngalee noonu boo ne jëyyi sa loxo di ko jox xale bi di ko nuyu mu jox la càmmooñ nga ne ko indi beneen loxo bi indi indi indi beneen loxo bi càmmooñ kenn du ko nuyoo yaa ngi jàngal xale bi nan la ñu nuyoo yaa ngi jàngal xale bi nan la ñu nuyoo bu xale bi yuuxoo ca kaw maam ne ko yow waxal ndànk ndànk lañ war a wax wax ca kaw baaxul dégg nga mu ne waaw ndànk ndànk ndànk ndànk daa mel ne maam yi dañ daan yare noonu man maa ngi fàttaliku Euh, ci sama yar donte taxul ma yaru lool maa ngi ñaan borom bi subxanahu wa taala mu defal ñu ko te defal leen ko maam yañ nekkaloon dañu daan taxawu taxawaay yu mel noonu ma jëlee ku mel ni sama bàjjen Ndiaye Sylla bis fet ma nettali ko ma nga ci ci la yal na ko yàlla yokk wér boo reeree ba tëdd ci gongu gi nga di ko bës léeg mu lay léebal di la nettali mu lay léebal di la nettali waaye di la moytandikuloo di am yum lay wax yoo xamante ne day am loo ciy jànge di am loo xam ne moom nga ciy jànge moo tax xale yi yëpp dañ daan wax naan xale yi nañ bokk ak seen maam xam nga loolu liñ ci jublu du sonal seen maam waaye bëgg seen maam di leen yar tax ndax yi ñeme ko miin ko naan ko maam nangam bu ko defee xale yi maam maam maam yaa jël yàpp yu bàyyi ñu maam yaa def nangam bàyyi ñu waaye maam a nga leen di yar naan eh tibbal sa kanam eh mayal kii mooy sa rakk eh yow wàññi li nga tibb eh bala ngaa tibaat li nga fexoon sàqami ko ba noppi door a sexaat dara eh, lardanti boobu daan am daf daan topp nit ki bu màggee mu doon ko civilisé doon koo xamante ne nii eh, ku mën a nekk la waaye du am taxawaay yi nga xam ne moo am léegi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ñaari sëtam yi kenn ki di doomi doomi xolam ndax Zayd eh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam doomoo woon na ko doomam nag muy Usaama ak Xasan mi nga xam ne Ali yoo ko jur ak doomi yonent bi di Fatima ñoom ñaar la yonent bi uuf waaye usaama mi koy nett li neen na yonent bee ngi raay suñ bopp di ñu ñaaxal noonu allahumma irhamhuma fa inni arhamuhuma yàlla maa ngi lay ñaan nga yërëm leen man de yërëm naa leen yàlla maa ngi lay ñaan yërëm leen man de yërëm naa leen di leen ñaanal ñaan gu ñaan gu am solo googu loolu liñ ci mën a jànge bari na lool ci wàllu yërmande waaye fii waxut yàlla yàlla na nga leen def mag waaye yàlla na nga leen yërëm ndax yërëm leen mooy tax ñu mën a mucc yërëm leen li mu ëmb dafa yaatu lool moo tax ci biir xadis yi nekk suñ kanam danañ gis bu baax a baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam solo si mu joxoon ñaan joxoon ko li nga xamante ne mooy yërmande ci biir ay ñaanam waaw solo si mu joxoon ñaan joxoon ko yërmande ci biir ay ñaanam ay alxuraan yi ñu indi jàngale na ci lu baree bari loo xam ne benn bu nekk rek buñ ci taxawee mu doy ñu sëkk ab bind doy ñu sëkk lu ñu war a taxaw yal na ñu yàlla boole nangul fàttali bu baax ne ñu ngi ci weeru baraxlu fàttali ñi nga xam ne ñoo amee bori koor amee boru koor te ngànt la nga ko amee woon jeex nga sàggane ko ba fayoo ko ba koor fekkaat ko fi bàkkaar la amee boru koor te ngànt la jeexut da nga yaakaar ne ngànt la dana jeex yéexee goo ko ndax ngànt li daa teggi ko yooyu yëpp yu mat a bàyyi xel la yal nañu yàlla boole sàmm yal nañu yàlla boole taxaw yal nañu yàlla boole nangul yal na yàlla defal ñu jàmme àdduna ak jàmme alaaxira defal ñu suturas àdduna defal ñu suturas alaaxira ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax jaajëfal imaam alxaaji oustaz Alioune Sall jaajëfal ko ci nopp lu conseil bi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal ko mu dellu si ci jàmm waxtaani fajar yi mu fi bàyyi lañ leen di bàyyee ñu ànd déglu ko ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu sàmm ko allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali kamaala nihaaya li kamaalika seen mbokk si Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu